Cheikh Mouhamadou Moustapha di teg di ko baral ci seen Cheikh di ko baral ci seen Cheikh Mouhamadou seen Cheikh nga xam ne li ñu def lépp ci seen teewaay ak seen kuutaay nga xam ne li ñu def lépp ci seen digal ak seen kuutaay ak digal ñu ci yàlla taw taw fa bañ def ni ko woon yàlla na yàlla def taw fa def ko ni ko woon waaw di fàttali rek bis bi koor liñ jóge ni ñu koor di fàttali liñ jóge jàpp yàlla ñu jóge koor كل عمل ابن آدم له الذي سبق عليه وعاد كل عمل ابن آدم له إلا الصيام إلا الصيام فإنه لي فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به نعم ادعو لله ما ينجو حوقك ما ينجو وأرى من جلب جلب جلب يرمى جلب وليه جلب وليه جلب يرمى جلب digg bi ak njëggal la bi ak njëggal mu di ci gorale sawar mu di gorale sawa del waxane del waxane ne bépp jëfi doomu adam bu ne bépp jëfi doomu adam bu ne mom mom moom lay ñeex di waral koor moom ko moo ko fayal boppam fay ko kon ci ci ci ci di di baax ci di ndokkee naa bu baax ak suñu kilifa réalisation bu am solo bi nga xam def na ko mooy. ci liggéey bu rëy bi nga xam ne def na ko bi mu réalisé. muy jaay ma muy complexe Cheikh Ahmadou Khadim bi. ñu ngi ko ci ndokkee bu baax. ñu ngi ko ci ndokkee bu baax a baax. xam ne jëf ju rëy la. te xam ne loolu jëf ju rëy la. waaw daf mel xar baax feeñ na ci. te it xar baax feeñ na ci. ndax diir bi ñu ko tàmbalee léegi. ndax diir bi ñu ko tàmbalee ak léegi. Eh, ni mu toll. ni mu toll. mu agsi mu agsi. ba mu agsi fii ci weer bi ñu génn. dañ tàmbali ko ci weer bi ñu génn. dañ tàmbali ko ci weer nit moom lu euh, yàlla da ko tànn mu wut ko ci kaw suuf. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة آه. لا الأمين بلول الأمين بلول الأمين بيالنا من ركو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو مملكو من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أكون لي من بيا لنا مي لولو بيا لنا مي لولو بني جيل نين كو تو مي كاوسو بجيل دو عالم يو دو مي نا عالم مو مو تي كاوسو لم جيك تامبلي مو موي لم جيك تامبلي مو موي وعلم ادم الاسماء كلها وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ثم عرضهم على الملائكه قال انبئوني باسماء هؤلاء قال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك قال سبحانه لا علم لنا الا ما علمتنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم انك انت العليم الحكيم قال دائما لو قيالة ثانية نقول مش توصف قال قيالة ثانية اعلى لبهور مش توصف لم جيك تعمل من ما يدار في حمل لنك سوف من يكوار جالي من يكوار لم جيك تعمل لك ما يحمل لك لنك توصف من يكوار جالي قال دائما لك حمل قال دائما لك حمل a nekk doomu ah, nag ba ci gën a yooyu mooy nag xam-xamu diine. xam-xam ba ci ah, ci yëpp lu ci ne doomu aadama soxla lu doomu aadama di war a jëriñoo ci kaw suuf rek. waaw lu xam-xam moo tax doomu kaw suuf. ko ak jëm koo xam ko ak jëm koo xam ne lu mënta ñàkk. waaw ah, te ni ñu def ñëpp jàng waaye bu mel na ne waaye soxla xam rek dootu ko jéggati mel na jàng waaye bu sëriñ taxaw lépp lu waaye soxla xam lépp lu waaye soxla xam mën nga ko cee xam jël ko ñu koy jëggaan ñu ko wënaat ñu di feneen waaw kon nag mel na ne loolu moom lu am am solo kon mel na ne loolu am solo waaw te ginnaaw euh, euh, kon fii day mel ne am na looy fàttaliku waykat boo xam ne kaadal muallimu an yakuna rasulan kon mooy am na benn waykat boo xam ne kaana muallimu an yakuna rasula waaye fi ne boo xoolee su si suñu maam aadama fi mu toogee ak malaayka yi waaye bu ñu xoolee maam aadama si di mu toogee malaayka yi waaw di leen di leen leeral loolu di leen leeral di ko yàlla xam ki dafa xam ne kaadal muallimu an yakuna rasula mën nañu wax foofu ne kaana kaadal muallimu an yakuna rasula kaadal muallimu an yakuna rasula la waykat boo xam la waykat boo xam waaye fii mën nees naa wax ne kaanal kaanal muallimu rasulan waaye diggante aadama ak malaayika yi mën nañoo xam taal Muhammad wa rasulullah man kon loolu la am solo. kon loolu lu am solo. ba tey it ci ngëneelu xam-xam. ba it ci ngëneelu xam-xam. آية بدك وات القرآن يقول آية بدك وات القرآن من اقرأ باسم ربك الذي خلق من اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم أكون من الملوك لو كنت أنا لوتي دقيقة لو كنت أنا لوتي دقيقة جانجل تنجي جكت نعتمد في سبورة نعتمد Seydina Muhammad yàlla na ko njëkkee tudd sa borom. sa borom mi nga xam moo bind. sa borom mi nga xam ne moo bind. kon li bind lépp ngi ci biir loolu. te li bind lépp ngi ci biir loolu. kon laqad xalaqal insaana min alaq. xalaqal insaana min alaq. kon loolu day mel ne ci nit lay dellu. loolu day mel ne nit lay dellu. iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam. iqra rabbukal akram allazi allama bil qalam. day mel ne lépp loo xam ne rek mi ngi ci téere wala lu ñu bind rek mi ngi ci téere. day làmb. lépp lu nekk téere julli allama al insaana maa lam ya'lam allama al insaana maa lam ya'lam waaw kon day mel ne lépp loo xam ne nit mënu ko ñàkk xam te te te yàlla xamal ko fa loolu lay dugal ci biir. dañ ne loolu lépp lu nit bëgg a xam ci àdduna ñu diine loolu day ko ci biir. waaw seen biir waxaat ne al ilmu wal amalu jawharaani. Sëriñ Tuubaa wax ne xam-xam wax ne al ilmu al amalu jawharaan jawharaan li xayriyat daarayni yajlubaan li xayriyat daarayni yajlubaan nee na xam-xam ak jëfe mu ne xam-xam ak jëfe ñaari wut lañ yoo xam ne day day day day bijj nit ki ñaari wut la yoo xam ne day xëcc nit ki biir ko boo matal ko ñaari yiw yiw ñaari yiw ñaari kër mooy ak boo matal ko ñaari yiw mooy yu am na ak

bay ba ba ba nga bay sawaar ba ba dindi ci loo mën ba mënta. nga bay sawaar ba dindi ci loo mën ba mënta yëg. waaw man ah ba tey ba delloo xaw ma ne ah ku ma andi taxaw lu muy. tey ñu wax ne man ah ku ma andi taxaw lu muy. boo ko xalee fatul ndax ñu ngi leen mukki di. boo ko xalee fatul ndax ñu ngi leen mukki di. nekk leen di ay jàng ku nekk. képp ku leen di ay jàng ku nekk. mooy ci wuutu iblis ci kaw suuf. kooku xam leen ne ñu ngi iblis ci kaw suuf ci la ko. waaw kon nag yëpp jar na tax ñu gën ci góorgóorlu. kon nag lépp war naa lu gën a góorgóorlu ci njàng xam-xam. gën ko fonkaat bu baax. te gën a fonk njàng bu baax. gannaaw bu ci kilifa gi defee coono yi ci daj yépp gannaaw bu ci sëriñ wax nga mën yi ko ci jàppale te xam wala euh, suñu njaboot wala ñu xam mu mu ci liggéey njaboot yëpp taalibe yeeg lépp rek. njaboot bi taalibe yeeg lépp. fexe bu ñëw ñëw dund jàppale ko ci loolu. fexe ba jàppale ko ci loolu. ba lam ci yéene mën a mën a sotti. ba li ci ba li ci yéene mën a sotti. waaw ah, bu loolu weesoo it. bu loolu weesoo it. Ah, maanaam it xam nañ ne xam-xam. xam nañ ne xam-xam. maanaam li war a jiitu njàngin mooy njàng mooy njàngu diin. bu loolu li war a jiitu njàngin rek mooy njàngu diin. waaye jànguwaay bi taxawaay bi mu taxawee. waaye jànguwaay bi mu taxawee. Ah leneen yéen xeetu métier yeeg yeneen li nit di itteewoo lépp lépp mel na yeneen xeetu métier yeeg yeneen xam-xam yi soxla lépp jànguwaay bi mel na ne du démb rek gis ñu wane eh, xeet maanaam ñuy yoo xam ne technologie ci ci moo leen sos. bu ñu xoolee ñu doon xool. ñi nga xam ne dañoo nekk ay milliardaires wala technologie. waaw ñeent ñoo xam ne mën naa ne ñi gën a riche ci àdduna bi ci lañ bokk. ñu xoolee ñeent ñi nga xam ne ñoo gën a riche ci àdduna bi ñoo ëpp alal ci àdduna bi. waaw jàng lañ def man dañoo jàng seen njàng bu bën. ñoo jàng seen njàng. njàng mu ubbeeku. njàng mu ubbeeku. ba liggéey soosu ca. ba liggéey soosu ca. ba liggéey soosu ca. ba ñu am ci liñ ci am noonu. ba ñu am ci liñ ci mën a am. bokk ñi gën a womal ci àdduna. bokk na ci ñi gën a womal ci àdduna. waaw kon loolu benn njàng kon loolu mel na xam-xam moo may. waaw man kon ginnaaw mel na nit ñi loolu mel na bokk na ci liñ ci loo xam ne seen itti la. kon loolu mel ne misaal moomu rek doy na ci wax kon ku ci nekk dara weesu. kon ku ci nekk di jàng ak fonk xam-xam nga xam ne dara weesu jëm. waaw te lu ci lu ci ne ubbi ko lu ne xañ na ci. ndax xam-xam bu ubbi ko ci nit lu ne xam mën na ci mën ko ci xam. fàttaliwaat rek ndénkaane sëriñ di fàttaliwaat rek ndénkaane sëriñ Tuuba man lu mu daan dénkaane lu mu ci bu daan santaane yenn yenn yenn yenn liggéey ci bu daan santaane mu yenn liggéey ci nangoo liggéey sëñ bi ci nangoo liggéey ak sukkandiku ci seen bopp ak ci wax ne dafa ngeen leen sant li mu leen sant ngeen mënal ko seen bopp. li mu leen sant ngeen mënal ko seen bopp. waaw mooy yu mel ne liggéey jumaa yi xëy na yu daan santaane. mooy yu mel ne liggéey jumaa yi ak yi mu daan santaane yëpp. waaw ngeen fexe ba defal ko seen bopp. mooy lu ngeen bëgg ngeen fexe defal ko seen bopp. waaw ndax bu ngeen ko defut nee na ko eh, keneen dañ leen ko defal. ndax bu ngeen ko deful keneen mooy ñëw bëgg leen ko defal. te képp ku la mënal ku nekk. dana la sañal. kon bu boobaa. mën na laa ci loo xam ne bokkut ci lay sañ a mën na laa dugal loo xam ne bokkul loo loo war a loo war a def kon nag euh, loolu liñ ci mën a dégg rek. kon loolu liñ ci mën a dégg mooy. mooy gën a taxawaat farluwaat ci liggéey. gën a farluwaat ci liggéey. te gën a jàppalante ci euh, yi te gën a jàppalante suñu diggante. ba ku ci ne ku ci ne daal sa morom la mu itteel ñu mën mën cee jàppalante. ku ci nekk daal la sa morom yittewoo xanaa ko def jàppale waaw taxawal ay gën a jublaat sóobuwaat ci liggéey te gën a gën ko jox gën gën ko jox daal bu gën a sóobu ci liggéey ak gën ko jox gëdd. waaw ba loolu mu ñu bañal loolu mu ñu bañal ci loolu bañu ci daal. ngir sëriñ bi lim ñu bañal loolu bañ ñoo daal. waaw te kat nit moom. ndax doomu aadama moom. yi ko mën a fëkk yii la. li ko ci mën a fekk yii la. fëkk. li ko mën mooy ki la jàngal. mooy ki la jàngal. deful ndànk mën mën na bu la bu man bu la bëggee wëlbati na laa wëlbati bu la bëggee détourné wëlbati la na laa wëlbati ci la dimbali bu la yàlla dimbali it man mën laa taxaw ci lay ci bu la yàlla dimbali bu namee na xam yow kon nag buñ jàngalee ndaw ñi kon buñ jàngalee ndaw ñi yar leen yar leen leen bañ mën a am métier wala mën a am lu njàpp taxawu leen bañ mën a am métier mën a liggéey waaw loolu ma yaakaar na daan nekk see nga daan nekk garanti ci ñoom dana nekk garanti ci ñoom waaw ba leneen du leen mën a këpp ba leneen du leen mën a fëkk waaw bu yooyu yëpp amul nag waaye bu yooyu yëpp amul nag la waykat boo xam ne la waykat boo xam ne wa min naka di dunia wa min naka di dunia ala al xurri an yara ala al xurri an yara aduwun lahu aduwun lahu ma min sadaqatihi budd ma min sadaqatihi budd waaw mooy bokk na ci jafe-jafe yi àdduna yi ci man de ma ne ci tiis nga xam ne ko yëngu. mooy na ci nëpp nëpp ak ak jafe-jafe ak tiisam. waaw ma nit ku baax maanaam nga dem ba koo xam ne la. ak gor dem ba nga ak jaar xarit mu sa xarit. nga def sa xarit ngir. ngir ngir na mënta ñàkk. ngir la nga mënta ñàkk ci moom. waaw kon nag loolu ci kon na ci ko def. yàlla na yàlla gën a defal ndimbalam. yàlla na yàlla gën a defal ndimbalam. gën a defal taw taw feexam. gën ñoo defal taw feexam. gën ñoo teg ci li bëgg. gën ñoo teg ci li mu bëgg. gën ñoo sori lim lim gërëmut. gën ñoo sori lim gërëmut. gën ñoo sori li nga xam ne gërëmu ko. waaw sax ñu ci diine. te sax ñu ci diine. waaw yéwén suñu mbir àddina ak suñu mbir alaaxira. yàlla yéwén suñu mbir àddina ak suñu mbir alaaxira.